ku ñuy wax Sadio si la moo ma jàngal moom tamit sant naa ko bu baax a baax a baax cant gi moom ci moom gën na cee dugg moom ci la bokku ba ci biir sax ndax moom damaa jàppale ci mbind bu baax suñu daara bu ñu wàccaan samay morom dañ leen di bàyyi ñu dem toog beru bind lu leen neex mais man su ma toogee di bind sax dama koy laaxatu waaye moom day ñëw ba ci man toog di ma jàngal araf yi naa ma saat nii lañ ko war a defee araf bii nii lañ ko war a defee sonn ci torop sax ba ma bind moom maa ngi koy sant bu baax a baax a maa ngi tàmbalee beqi bi may jàng dama daan bind par àlluwa di wane bi deux bi ma demee ba toll 2012 2013 ma tàmbali di beqi beq na ñetti yoon ba tàmbali sama ñeenteel doog a bind kaamil sama beqi nag moom am naa ci ay jaar-jaar ndax boobu gone gu tuuti laa yor àlluwa ju mag di beqi nit ñi sax dañ ma doon ñeewantal naan sa tuutiwaay bi mbind mi moo la la ko jox mayor yor allo mag di beqi foto yi su ma koy xoolaat sax souvenir day day neex ci man torop sax beqi ñeenti ñetti yoon ba dugg sama ñeenteel doog bind kaamil bind naa sama première kaamil ma bindee sama première kaamil ba mu jeex nag laa dégg annonce su c 3 ñu dugal ma ci sama sëriñ wax sama papa ne ñu ma naa ci Aysatu na man mën naa bindu ci mbind mi ma bind bi ma bindoo ñu woo ma ne ma jël nañ la ma kontaan ci torop sax ma dem wane sama sama góor góorlu sama njàmbaar te mais yàlla sunu borom moo ma ko defar ma góor góorlu bind def liñ ma def loolu lépp ñu woo ma ci final bi ne ma jël nañ la final ma demaat ca final ba tamit def noonu yàlla dimbali ma ñu ñu joxe résultat yi ne yaa doon première ma kontaan ci torop sax nag jour biñ ma annoncé nouvelle bi moom ma maa kontaan torop bay jooy ma xam ne nag résultat yi mooy ñëw ndax bind bi moom dama cee sonnoon torop jooy naa ci sax naan man li ma beq dafa bari mais yàlla sun borom moo ko bëggee woon noonu résultat yaa ngi nii nag kontaan naa ci torop sax su weesoo loolu maa ngi soññaat sama mbokk jigéen ñi tamit sama mbokk jigéen ñi maa ngi leen soññ ñu gën a góorgóorlu ndax lii ma am ni ak toog yaafus nii taxul ma am ko toog taxul ma am ko su ma toogoon ñu naa ma demal jàngi may xëy di tëdd di nelaw ñu naa ma jàngi may laqatu bañ a jàngi kon lii lépp duma ko am mais dañ maa teg ci yoon man tam ma nangu caa jaar yàlla defal ma loolu maa ngi soññaat sama mbokki jigéen ñi jàng daara ñu góor góorlu ci mbind mi rawatina mbind mi ñu góor góorlu ci ndax jàng ak mbind ñoo ànd maa ngi sant yàlla bu baax nag ci li ma yàlla defal weesoo loolu sama ñaari waajur maa ngi leen sant bu baax maa ngi sant sama papa moom mi nga xam ne judd naa ba man ba dal jàng mu dugal ma ci daara ji bu neexoon mu def ma ñi sama yeneen morom bi mais damaa dem dugal ma ci daara may jàng 2007 laa dal jàng xale bu ndaw laa woon dugal ma ci daara ji may jàng def li ma sant lépp maa ngi koy sant di ko gërëm ci loolu weesoo maa ngi sant sama yaay moom tamit mënoon naa di xëy di dem jàngi mu ne ma bala ngaa jàngi di nga xaskin bala ngaa jàngi di nga defar néeg bi ba pare mu naaj wala bala ngaa jàngi tey doo jàngi dama damaa aye mais loolu lépp fekk ko ci saa su ma xëyee ne ko yaa maa ngi jàngi mu ne ma demal te ñëw koor gi su jotee ñun dañuy teel a jàngi moo may régleel téléphone am 7 heures bu jotee mu yee ma ne ma ay sa jugal jàngi ma dem jàngi ba sama heure wàcc jot su ma ñëwee nag doog a fekk li may def ci kër gi liggéey bu ma fekk ma doog koo liggéey loolu tam maa ngi ko ci sant bu baax weesu loolu maa ngi sant sama sëriñ sëriñ bi ma jàngal Baye Issa Sylla maa ngi koy sant bu baax a baax a baax moom moom ma fayam dama ñaan yàlla mi am fay rek mu fayal ma ko ci barke borom Touba sama xol laa ko tibbee nag sëriñ Issa Sylla yàlla na ma ko yàlla fayal ci barke borom Touba sonn na ci man torop sax sama jàng mi da cee sonn jàng xam mi noonu da cee sonn bëgg a maa ngi koy ñaanal daal sama xol daal sedd na ci moom maa wax ci moom maa ngi koy ñaanal yàlla lépp lu mu ci daaraam ji yàlla defal ko maa ngi koy ñaanal yàlla tamit daaraam ji ay ndami ndami ndam ñëw fi ci barke borom Touba Mbacké yàlla bu ndam lii ndam lii yàlla bu mu ci yem yàlla na amaat ay ndami ndam ci barke borom Touba maa ngi gërëm tamit waa C3S maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax rabbika bi majnun